nañ am njort que ne euh, tout ce qui se fait jamono ji en faveur de Pastef Ousmane Sonko manifesté wu ci opposition parce que ñu ngi koy tudd mais jusque là dara dara leeru ci ñenn ñi. son silence est bruissant son silence fait du bruit. Mm -hmm. pour une raison très simple. situation boobu nag dafa metti cest ay xale ànd ak yow di xeex ba ba tëdd kaso ci du dul yoon nga jàpp ni li ñu tëddee ko doole lañ leen jaay. loolu mën a génnee dina jafe ngay taxaw di xeex pour ñooñu bañ a génn parce que au delà de de de de loi règlement y a l'aspect humain. Mm-hmm. y a l'aspect humain. dafa jiital ñooñu. parce que pour man bon je lu muy xalaat. mais mm-hmm. jàpp naa ni nit nit la nit la parce que xam nga nit nga woote benn combat ay nit dugg ci ànd ak yow ci xeex bi. ba ñàkk ci lu bari kaso neexul kaso neexul te surtout nag koo xamante ni deful dara. Mm-hmm. ku deful dara. Euh, waruloon dugg kaso ñu def fa ay un an deux ans bu amee lu mu tuuti tuuti un à deux pour cent moo tax euh, je plains dama yërëm député Pastef yi dañ bëgg a bañ loi na bi. mais bu jàllee dina leen arrangé mais bu jàllee di leen arrangé. Mhm. parce que seeni xale rek ñooy génn. ñoo ciy profité ñoo ciy profité te pour man xale yu ndaw yi génn ci prison bi seeram day daw. Mhm. da ngay gis xale yi di génn nga xam ne ñii bu dee ñii lañ doon jiñ terroriste. ça veut dire que Sénégal am na ay terroristes yu baax parce que <laughs> voilà c'est ay imam ngay gis ñuy génn ay sëriñ ay nit ñu baax je ne man je ne sais pas comment prison yi ñu doon gérer prisonniers yi ñu daan am ak prisonniers yi ñu am fa hmm. ciat yi parce que bu ñu bu ñu prisonnier tu penses à des tout à fait ay sàcckat ay agresseurs ay violeurs ay raykatu nit mais j'ai peur ñu baax ñi la ñu la ñu la ñu tëj ñu bon ñu ñu bàyyi leen ba ñuy ba ñu def leen